Tay dañu organiser ici, ci centre culturel ben cérémonie pour sargal élèves yi nga xam nous dañu am mention très bien ak bien ci bac bi ñu génn fi ci Louga mu nekk 23 euh, élèves yo xam ñi ngi ci école publique yi ak ci école privée yi ñi ngi ci système classique bi ak tamit système franco arabe bi ñom ñep ñu dajja fi tay euh, Louga avant tout dont la présidence dont le président est Abdul Ahad Ndiaye ñew sargal leen mu nekk aussi mbégte euh, vraiment ci euh, euh, ci ville bi yëpp ñu gisoon ci inspection d'académie de Louga conseil départemental gis ci également école nga la parents d'élèves mu cérémonie bu am solo. doxalin bi juste le bon exemple wane doxalin bu nga doxalin Sénégal suñu njàng meeg des mi dafa nous. trop te euh, bëri aussi ay jafé jafé jafé ci gis nañ fan ay ay élèves des di ah, des euh, ay bureau ah, ñi di des euh, ah, donc loolu ay crise c'est juste que excellence la valoriser wu élèves yi en train dañoo soxla gis ay modèle mu am concurrence saine ci sen bir te jàpp naa ni élèves yi nga xam dañoo am bac bu ñu leen récompenser euh, sargal leen ci seen kanami morom ñoom aussi dinañ bëgg def def lu ni mel ba résultat yi ñuy am après nekk ay résultats yu baax. privé bi euh, moom dafa commencé am doole fii ci Louga ndax mën naa ni sax privé yi ñoom ñoo ëpp fuuf public bi fii fii fii ci Louga ci côté lycée yi parce que euh, ñetti lycée public lañ fi am waaye mën naa ni am nañ fi lu mat fukki lycée yoo xam ni ay privé la. donc ñom aussi distingué ngew nañ bu baax euh ci euh, manam ci examen bi euh, ñu gis ci aussi euh, privé franco arabe ñom tamit distingué ngew nañ ci bu baax loolu yëpp pour wone ni jang mom ci côté yëpp la baxé waaw système franco arabe aussi mi ngi avancer bu baaxa baax te mu nek système bo am solo ndax élèves yi nek dañuy xam li nga xam ni mom lañuy jangalé ci classique bi waye au delà de ça dinañ ci xam seen diiné xam ci également lu bari lo xam ni ay valeur morale

ak man mii nga xam ne damay euh, yëngu ci wàllu woowu pour jël suñuy ay bind euh, boole ko euh, ci cadeau yi nga xam ni moom la ñu jox élèves yi je pense que loolu aussi dina gën a dooleel bind bi nga xam ni moom la Lougatois yi di def ñu gis ni tamit bind bu am qualité la ñu gis ni bind bu rafet la te li ñu ci war a def rek mooy gën koo dooleel gën koo valoriser gën koo dugal ci école yi ak ci centre culturel yi pour muy am ay activités yoo xam ni waa Louga dinañ mën xam ñan ñoo fi nekk di yëngu ci walu woowu ak liggéey biñ ñu ciy def. ñi ngi aussi lancé appel euh, ñaña mi nga xam ne mi ngi soog a jël fonction li nekk première activité am ñu koy encouragé pour mu gën a dooleel activités yu mel noonu avec euh, en collaboration école yi l' association des écrivains bi fi nekk ñoom tam ñu leen di wax ñuy gën a def ay activité euh, pour gën a wane auteurs yi parce que Louga am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi bind am na ay jeunes auteurs mais problème bi mooy peut-être population bi dañ leen a xamul. Et aussi si ñu leen inciter ñuy